ñuy dalal tey euh, Famara Sané muy euh, analyste politique di géo analyste géopolitique également ñu waxtaanee situation réew mi ci wàllum politique ak bitim réew doore kook li fi xew jamono ji euh, mu mel ni wàllum politique dal mbir mi dafa mel ni volcan tey ji justement ban jàngat nga ci def. ci beaucoup comme noo ko waxee en français rek je pense que euh, ñaari acteur yi ñoom ñoo ñoom ñoo bëggul vraiment situation mu nekk euh, favorable euh, la ci pour mu mën a am élection yu dans la paix et dans la stabilité gis nañu parce que opposition xam na Macky Sall très bien opposition xam na ñan ñoo nekk parti au pouvoir lan mooy seen seen seen déclaration régulière ñu ñuy def particulièrement tous les jours donc ñoom xam nañu Macky Sall yàgg na depuis mu accéder pouvoir na yàgg na euh, mu wone na euh, mbëg-mbëg ma boo xam ne euh, moom buggula mu am opposition crédible opposition boo xam ne dina manifester régulièrement contester ses droits et sinon revendiquer ses droits donc ñoom ñoom ñoo waroon jël disposition yëpp ñu préparer seen feliz Eh, mais dañu caaxaan toujours euh, euh, tuuti ci ci seen préparation bi loolu moo tax eh, ñu moo am erreur yi mënuma comprendre Sénégal avec euh, tradition bu mu am ci organisation élection ñoom ñi nekk ñi def ay eh, erreur yoo xam ne vraiment c'est inadmissible mm-hmm. du côté du pouvoir mm-hmm. gis ñoom Macky tam moom tam moom am na responsabilité bu rëy ci instabilité politique bu dans laquelle nous vivons actuellement également parce que moom en tant que président euh, jaar na ci opposition nekk pouvoir jaaraat ci opposition ñëwaat ci pouvoir donc moom war na xam ne euh, réew mi euh, ni benn nit mënu ko eh, mënu ko mënu ko diriger mm-hmm. donc yow da ngay ñëw nga nga def li nga mën nga laaju population ñu choisir pour ñu ñu renouveler la confiance bi ou bien ñi bu dee ci ñu seen bopp ñu choisir keneen donc ci tradition boobu boo xam ne yàgg na ci démocratie mm. eh, que Sénégal dañ ko cité parmi comme exemple par mi les grandes démocraties donc je pense que Macky Sall tey dafa def un grand pas en arrière warul def loolu parce que fu mu nekk ni euh, tour Sénégal vraiment la la remettre en cause dans la gestion démocratique. lan moo waral euh, à chaque fois bu ñu nee dañuy xeex pour démocratie bi gën a politique moo ko yëkkati. oui parce que comme euh, acteurs yi xam vraiment gouvernance Afrique moo mel noonu. parce que suñu gouvernance bi euh, dans la plupart des cas euh, depuis indépendance bi léegi gis nañu euh, ku accéder pouvoir rek da day def lépp pour mu maintenir pouvoir bañ a de bañ a dellu ci opposition ou bañ a jouer le rôle de l'alternance au du pouvoir donc moom c'est comme si ñoom ñi nekk pouvoir dañuy ragal ñëwaati opposition par soit peut-être que lu ñu def ci pouvoir bi moo ñaaw Eh, donc dama dañu ragal de dellu ci opposition mm. ah, loolu moo tax ils font tout dañuy def lépp pour ñu mën a conserver pouvoir bi quoi mm. ah, donc loolu c'est vraiment déplorable pour la gouvernance africaine ay at ci ginnaaw 1960 euh, ak tey euh, mën naa wax euh, noonu yàgg nañ fee gis ay xeex yi nga xam ne ngir démocratie bi jëm kanam ci mim réew mais tey boo xayma est-ce que foogoo lañ doon xeex yépp Euh, dafa mel ni amatul solo. oui ci dans ci dynamique bu Macky Sall dans laquelle mu ngi mu ngi euh, mu ngi yóbbu dëkk bi euh, je pense que c'est comme si euh, Sénégal dafa def euh, plusieurs pas en arrière. Mm-hmm. parce que gis nañu. Euh, gars yi xeex nañu depuis les années cinquante pour ñu mun a am indépendance ci indépendance boobu ci démocratie bi euh, ñu indi ko de démocratie boobu euh, i y avait certains am na amoon na ay limites donc xeex nañu depuis temps Senghor mm-hmm. temps Abdou Diouf ba Sénégal évolué dem am code consensuel mais également ñu utiliser isoloir xam na Sénégal amoon na temps élection yi du ñu utiliser wuñu isoloir mm-hmm. mu am isoloir mu am code consensuel et mu am alternance première alternance dans la paix dans la dans une dynamique de consolidation de la mm-hmm. démocratie alternance boobu mooy moo moo am beneen alternance boo xam moo porté Macky au pouvoir mm-hmm. donc je pense que moom boo xam il a fait l'opposition pouvoir son pouvoir war na am il devrait être un modèle mais c'est c'est une déception par rapport euh, aux attentes des Sénégalais et je pense que le pays a fait si on suit si cette dynamique continue euh, ñu ngi ci vraiment on a fait euh, le Sénégal ferait fera des pas en arrière. laajte woon nañ la ko ay weer euh, tey dinañ la ko laajtewaat parce que ñoo ngi gën di jege élection yi tey euh, yan élection nga jàpp ne moom la ñu war a mën a am ci Sénégal fii leeg ay fii leeg weer. pouvoir bi la la la coalition au pouvoir le président Macky Sall su bàyyul élection dina métti. même su amee élection parce que moom am na pexe am na moyen euh, pour mun a imposer élection bi pour ñu mun a organiser élection bi mais élection dina nekk élection boo xam ne du nekk élection crédible. Mm. donc euh, il va falloir qu'il travaille pour l'instauration d'une élection crédible. wax ci France euh, seen président bi ñu fal bu yàggul ngir mu amal ñaareelu mandat moom nag ca législative yi dafa mel ni euh, français yi dañ ko woon ginnaaw ndax amul majorité absolue li ni mel noo ko mën a jàngatee. oui parce que c'est à France français yi ñoom dañu gëmoon seen président ñu woolu ko ci thème ci thème de campagne yi mu développé yëpp. ñu ne ci war nañu ko opportunité mu continuer liggéey bi mhm. mais euh, dans la ci préparation assemblée nationale peut-être que euh, choix bu mu def euh, ki ses collaborateurs députés yoo xam ne ñoo war a défendre sa politique au niveau de l'assemblée mhm. donc peut-être que Euh, quelque part l'opposition a eu plus de euh, de représentants crédibles yoo xam ne population dañ leen gëm et par rapport aux candidats de, du pouvoir voilà la situation est là le pays est obligé euh, d'évoluer dans une situation de négociation pour pouvoir gouverner facilement. mbaa loolu waa justement fi nga daane leen mbaa loolu dina yomb ci moom tey ji bu amul majorité assemblée liggéey moom mi di Macron. dina yomb comme du du yomb dina yomb bu dee moom pare na pour collaborer et comme France tam c'est une vieille démocratie dina yomb mais du yombo dans la mesure où euh, moom euh, des fois il fera toujours vraiment face à à des prétentions pour que mu imposer sa, sa sa loi ou bien sa démarche donc les tey li ñu xool mooy France yàgg naa ci démocratie yàgg naa ci situation bi et que c'est pas la première fois mu mu mu xam euh, c'est-à-dire mu am collaboration entre l'opposition et le pouvoir mm. à un moment donné euh, il y a eu cette cohabitation donc euh, je pense que là peut-être que comme am nañu expérience ça peut aller et mm-hmm. aussi France tam nekk na dëkk boo xam ne quel que soit Euh, le président qui est sur place c'est dëkk la mu am tamit euh, beneen mbir tey euh, président Ukraine jàkkaarloo ak Union africaine à travers président am président boobu di Macky gis nañ ne bu yàggul demoon na Russie tey tamit noo jàngatee face à face bi loo jàpp ne mooy enjeu yi. enjeu yi ah, enjeu boo xam ne dina nekk vraiment très favorable pour le continent africain mm-hmm. parce que guerre Ukraine bi dafa remettre en cause l'ordre mondial en place donc. tey gis nañu ñëpp dañuy courtiser Afrique mm-hmm. donc euh, la Russie Russie moom. Euh, partenariat boo xam ne boobu mu ngi mu ngi mu ngi koy démarché pour mu consolider ko mooy partenariat avec Afrique donc moom nekk na un principal acteur dans la fourniture des produits comme hydrocarbures pétrole bi ak yeneen produit céréales yi mm-hmm. Ukraine tam noonu la Russie noonu la Ukraine tam noonu la je pense que ñaar dëkk yi dañu am dañu war am euh, un partenaire sûr parce que l'Europe n'est pas aujourd'hui la euh, la la visée Mmh. donc euh, ñaari dëkk yi dañuy viser je pense que c'est pour cela euh, yaakaar naa message Macky Sall dina am por dina am portée dans la mesure où euh, dynamique bi mooy actuellement l'avenir de l'ordre mondial économique c'est c'est l'Afrique donc dëkk yëpp ku nekk soo bëggee am jàmm nga mun a développer sa dëkk bi il faut nga vraiment instaurer la paix également nga am un véritable une véritable coopération avec l'Afrique mais africains yi tam war nañu am nañu nañu profiter ci situation bi pour ñu mun a imposer à ses à ses partenaires ni imposer leen en un véritable partenariat boo xam ne euh, des basé sur vraiment une égalité euh, de tout temps gis nañu Afrique moo perdu ci dans sa dans dans le développement de sa coopération euh, lu bari partenaires yi ñoo tiré profit mais ça sera autour de l'Afrique vraiment de négocier très bien son partenariat et que Afrique bi tam mun a nekk ci position boo xam ne euh, parce que gis nañu non seulement nous sommes consommateurs mais également euh, nous sommes fournisseurs de matière premières de première nécessité. ñu gis euh, la xew ca Rwanda ak RD Congo mbir mi di gën di law li ni mel njeexitalam ci Afrique justement. je pense que ñaar dëkk yi am nañu relation yoo xam ne relation yu yàgg. Euh, ci période boo xam ne tubaab yi ñëw nañu Afrique euh, gis nañu dans la dans la politique de du développement des cultures de plantation population yu bëri rwandais dañuy installé woon Congo ci ñoom tey ñu bëri am nañu euh, ñaar téeméer at téeméer at donc ñoom ils se considèrent comme des congolais donc ñaari dëkk yi war nañu war cela parce que congolais mënuñu mënuñu mënuñu mënuñu dàq euh, rwandais yoo xam ne yàgg nañu ci installé euh, ci seen dëkk yi mais également rwandais doit tenir compte de que euh, le, le Congo parfois aussi euh, day constituer prolongement du Rwanda donc surtout pour le Rwanda dëkk boo xam ne jaar na ci guerre boo xam ne euh, marqué na l'humanité toute entière avec un choc moral à travers le génocide donc ño je pense que ñoom euh, war nañu vraiment prêter attention pour développer des relations de proximité, de bonne collaboration ak dëkk frontalier yëpp. gis nga Union africaine maanaam andi euh, waxtaan seen diggante. oui Union africaine de tout temps euh, moom day liggéey pour vraiment mu am paix et sécurité à travers l'Afrique d'ailleurs ça fait partie de la charte fondamentale de l'Union africaine et je pense que maintenant il va falloir que les deux ñaar interlocu ñaar interlocuteurs yi ñoom ñu ñu ñu euh, ñu ñu collaborer ñu ñu participer dans dans la consolidation de cette euh, politique. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Famara Sané. merci merci madame merci beaucoup.